alors euh, ci ci sortie <coughs> démb bi dégg nañu benn discours boo xam ne euh, lu ñu wax euh, discours musclé la maanaam ak doole lañ ko waxee waaye gis nañu xeetu bras de boo xam ne am na ci aussi parce que Ousmane Sonko bi ñu koy dégg mu wax dafa sax dam ba interpeller Macky Sall ne ko manifestation bi ñu fas yéene def ñu autorisé ñàkk autorisé dinañ ko amal ministre de la justice ba muy àddu ci arrestation yu bëri yi ne képp koo xam ne dafa jóg pour fauter le trouble dañ koy jàpp jugé ko tëj ko. est-ce que ministre de la justice wala ministre de l'intérieur. de la justice. Hmm. Ismaël Madior Fall. Hmm. Euh, nekkul bras de fer boo xam ne peut-être mën na gën a attiser. Hmm. situation bi ba tax pour euh, issue de sortie am mën a jafe. waa xam nga euh, man damay wax ne. institution yi nit ñi dañ naan Ousmane Sonko na respecté institution yi mais man dama gëm ne Ousmane Sonko. du moom moo ñàkk respecté institution yi mais Macky sàll président Macky Sall moo respecté wut institution yi. ci naka. su demee ba nga xam ne tey boo dee wut ab marche da xam ne préfet du moo lay may du moo lay xañ. Mhm. mais Macky sàll moo lay xañ. kon préfet bi existence amatul njëriñ. Ah, te ci yan acte nga ko pour wax ne. li Ousmane Sonko mooy question bi nga laaj mooy Ousmane Sonko nee na Macky Sall moom moom la ñuy waxal parce que préfet yi ay ay al toppee la wax xaw ma nu mu ko waxee baatu olof. Mhm. mais wax na dëgg yow soo duggoon ci bëgg a def manifestation rek nga yëg amoo problème ab préfet. amoo problème ak sous préfet amoo problème ak gouverneur xam nga ko amul problème. Hmm. Antoine Diome ak Macky Sall ñoom lay neex ñii mitin ñoom lay neex kii du mitin léegi préfet yi préfet yi ay figurants lañ non seulement seen njàng mépp non seulement administration civile bi ñu jaar ak lépp administrateur civil bi ñu nekk ak lépp léegi ay figurants lañ amuñu. Hmm. voilà amul benn préfet bu am fitu waa APR di mitin nga ne ko doo ko fi defee. amul benn préfet bu am surtout pourtant jot na fi am de ñu annoncé manifestation boo xam ne dañ ko euh, kenn autorisé wu ko waxal benn euh, jeunes yi nga xam ne ñoo nekkee APR am na jamono boo xam ne jot nañ fi euh, am na fenn fu ñu ko bëggoon def en tout cas mais c'est boo xam ne jot na amul gis naa ko amul Macky Sall moo mës a dem terrain Ndoyeen Mbacke mhm. war faa def campagne électorale ma dikkee naa njëkk ko fa campagne électorale li ma yàggul de xoola dama ne la mhm. dama lay wax lu gën a lu gën a yomb Macky Sall ma dikka naa di ko njëkk foofu campagne électorale calendrier bi moom mooy mooy gérer boppam mhm. nekkatul loo xamante ne xam nga Ousmane Sonko xalaatoo mu nekk candidat dem Mbàkke ñu ne ko préfet bi neen doo fi miti ni catastrophe loolu mënul nekk mhm. loi bi dafa soppi ko dafa leen tiim loolu la ñuy jël ñoom toujours di ko tegaat suñu kanam te loolu demeewul noonu ñun Touba lañ dëkk lépp dund nañ ko foofu Macky Sall xam moo lay wax ne dafay dafay dooleel fitna ah xam nga laa moo la koy wax mooy mooy mooy nitu nitu violent la maanaam day dooleel violence laa koy wax xeex xeex yu métti yi ak yu mel noonu daf koy dooleel xam nga lan nga koy xamee. Modou Gueye bi mu fal impôt yu domaine mu remplacé Mame Boye Diao. Mm-hmm. ak Abdou Karim Sall mooy maire wu Mbao mm-hmm. mais ñoom ñaar ñoo doon xeex méga bi amoon terrain CFA meeting bi wa bi waa kër Amadou Baye doon def foofu terrain mm-hmm. CFA ñoom ñaari politiciens yooyu bi ñu xeexee dañu xeex dimanche jeudi ñu nommé Amadou ñu nommé Modou Gueye jeudi ba ca topp ñu nommé Abdou Karim ña fa nekkoon defuñu benn violence lan lañ dem yow nga yor sa parti politique ñu def meeting ñaari politiciens ñaari leaders yi yor seen i sées seen mbokk seen i seen i di dóorante ay yat ak i ak i sées ci biir meeting bi. Mhm. bi ñu paree même pas 15 jours ñoom ñaar ñëpp lañ fal. donc léegi day dooleel day dooleel day dooleel violence biir parti wala da koy aaye. Hmm. mooy bu ngeen xeexee ma fay leen. te li ma la wax nii ay fee man du ma du ma waxantul ay moo Modou Gueye fal nañ ko demal xool conseil ministre Thiès lañ ko fale. demal jël demal jël meeting bi ñu def euh, Kër Massar. Hmm. bi ñu def Pikine ak conseil des ministres bi jeudi bi da dafa ñëw rek mu mu mu honoré honoré ko ci xeex bi mu doon xeex. Hmm. Abdou Karim Sall mi mu doon xeexal. jeudi ba ca topp mu honoré ko moom tamit ci xeex bi mu doon xeex léegi Macky Sall ko day mooy mooy mooy dooleel mooy dooleel violence. d'accord alors ci biir violence boobu am na ñu bëri ñoo xam ne jamono ji gëm nañu ba tey ni euh, dialogue mën na am xaw ma entre Yewwi Askan Wi lay doon ak Macky Sall wala leader opposition bi muy Ousmane Sonko ak Macky Sall est-ce que jàpp nga ne lu mën nekk la jamono ji. non dialogue moom man amuma ci kii li ma am daal mooy. Hmm. réew mi bu fekkee am na ay kilifa diine war na am loo xam ne nii duñ ko seetaan. Hmm. waaw bu fekkee am na ay kilifa diine war nañoo bañ a bàyyi Mame Mbaye Niang ay affaire de diffamation lu ma xamul ak fii ak élection yi ni mu toll ni mu xate mhm. candidat yi nekk fi ak candidat bu toll ne Ousmane sonk nga bëggu di ko woo ci yoon ba noppi bëgg loolu mel ne maanaam ma njoogu njaay wala benn benn benn benn Baye Mbaye wala benn waay rek nga woote ci yoon na dem jël benn saagam dem wuy ji ñëwaat loolu ku ko yaakaar yàq nga année électorale lañ toll politicien bi tension politique bi tension yi day yéeg. donc kilifa diine yi waroon nañoo entrepellé Macky Sall ci boppam wala ñu entrepellé Mame Mbaye Niang ci boppam waxtaan ak moom lii bu ko mënee teg ci suuf mu teg ko ci su ko tegul ci suuf tamit lu mu jaay dañ koy jënd wa parce que mënoo bàyyi ba ak élection yi di ñëw nga jël benn waaye naan ko da ngaa doon wax tudd nga sama tur rek yu ñàkk fayda ah. Mm-hmm. ba pare bëgg nag nit ñi toog di la xool. gisoo ne Ousmane Sonko ñaari at ci ginnaaw wala at ci ginnaaw da doon dugg ci dëkk bi du am problème. Hmm. mais jamono jii ñu toll depuis Mame Mbaye Niang pelante ko ak léegi nit ñi dañu fiir ci moom ba mayetuñ ko sax mu taxaw ci démb gis nga ko bi mu demee Dakar nit ñi ñëpp dañuy génn. bu taxawoon sama buntu kër gi balaa 15 minutes waa koñ bi génn ñoom wër ko foofu la Ousmane Sonko toll te Mame Mbaye Niang moo ko fa tollale c'est ça voilà d'accord alors ñu ñu génn ci ponk boobu euh, ñëw ci beneen actualité boo xam ne euh, pratiquement entre démb ak tey euh, la machine judiciaire bi daal di emballé wu ba ñu mujj ko vider plus ou moins muy mbirum Hadjibou Soumaré mi nga xam ne balaa ñuy ñëw si jugement bi ba contrôle judiciaire bi d'abord laaj yi mu samp ngir bëgg lu leer ci par exemple loo xam ne am na ko ci ay doute Euh, loolu itam ba tax ñu dugal plainte euh, mbir mi dem ci yoon euh, gis-gis bi nga ci am yaakaar woon nga ne jaroon na ko wala déet objectivement. waaw yow ak man. Mhm. ak ñi ñuy seetaan ñëpp xam nañ ne lii jaru ko woon benn aasu Hadjibou Soumaré 72 ans. Mhm. ñaar Hadjibou Soumaré bi muy bind leetaram tuuma mi ngi fi laaj mi ngi fi mu bàyyi fi tuuma ñëw ci laaj sëriñ bi ndax yaa jël sama portable. ak sëriñ bi yow yaa jël sama portable xam nga bokkuñu. bu dee yaa ko jël. su ma ne la woon yow sëñ bi ndax yaa jël sama portable ndax da nga noo lay oyof ci yow parce que baatu ndax boobu ci dugg. ndax waaye dolli na ci bu dee. dama ne. oui ndax yaa ko jël. Mhm. wala ah sëñ bi de bu dee yaa jël sama portable jox ma ko. ba tey bu dee boobu rek day oyofal mbooleem mooy. Mhm. mais su ma ne la woon Coulibaly yaa jël sama téléphone delloo ma sama téléphone boo moytuwul nga yóbbu ma police wala nga jóg mbëkk ma. Mhm. parce que ndax boobu wala bu dee boobu dafa lu muy signifié ñun ay moo lañ yor. dégg nga soo dajee woon ak nit mu ne la damaa am xew da ngay jàpp ne ngénte la am wala ceet waaye soo dajee woon ak nit mu ne la damaa am xew-xew da ngay jàpp ne dëj la am te pourtant même mot la xew rek nga wax mais da nga ko modi da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko répété dama am xew-xew wala yëg ngeen xew-xew bi waaye yëg nga sama xew bi te pourtant même mot la ndax ak bu dee gis nga baat yooyu dafa am lu muy signifié ci li ñuy def mais man Hadjibou Soumaré man damay jël contexte bi damay wax ne Sénégal euh, du ma jël man nag maa ko def du ma jël li xew nii mais dama koy entrosser histoire Hadjibou Soumaré moom la ma Macky Sall remplacé woon. ci ci poste premier ministre poste mm-hmm. Giro soxna si sant Giro tey nday tey maanaam madame madame madame madame madame madame Hadjibou. Mm-hmm. madame Soumaré ak madame Sall dama xool seeni relation neexoowuñ madame Sall ak madame ay ay rival yu métti lañ loolu jekk gi yëpp xam nañ mais lu mu doon ci ah mais est-ce que mhm. xam nga xel moom day xalaat jabar daa jege borom mhm. daa jege jëkkër ji ah loolu ci ah. yoonu justice ah, justice moom liggéeyam lay def man daal waa xam nga wax naa jëkk naa laa wax li xew mhm. bu fekkee Macky Sall nangu na toog biroom éviter ñoom rapport yi ñoom ñoom xomaan ñu ne ko président de la république bàyyil Karim Xurum Xaq mm. mu ne dinaa ko bàyyi waaye mm. justice fu mu nekk foofu fu justice bi nekk le fait nit ki nangoo toog ak président de la république ne ko bàyyil diw mais gannaaw jugement président moom tamit nangu ne man dinaa ko bàyyi ak gannaaw ah, jugement am na prérogative def euh, grâce dama ne dama ne dama ne kenn jugé gul amul prérogative def grâce liberté provisoire lañ doon ñaan kat ci Macky Sall yoonam nekku ci. waaw moo nga nopp sama doom dem di ko ñaani Macky Sall ñoo yam doon na sama kilifaay doom mais àggul ci man koo maye. liberté provisoire Macky Sall man moom moo yilif justice mais àggul ci droit maye ko bu ko mënee rek mën naa maye sa doom yow. nga xëy suba ñu ne la Macky Sall maye na sa doom ji dem benn waaye la ko may munu ko. faaw mu wax ak yow. fii loolu am na rek. maanaam aji bu sumaaree lii moo ko andi. mais man dafa am lu may wax rek mooy li amoon. Amadou Ba lañ tëj moom mi nekk premier ministre ak actuellement. Mm-hmm. nangu en tant que premier ministre ancien premier ministre ñu jël ko ci lu ñàkk fayda tëj ko dóor ko sous contrôle judiciaire tam nekk kilifa war a dox ay soxlaam. Mm-hmm. Amadou Ba waroon naa def lu ne démb ba Hadjibou Soumaré du fanaan foofu parce que mu honoré sax moom ndomba tànk bi mu takk. ah mais est-ce que par parlo bi ñu nekkee war na autoriser fekkee Macky Sall dafa fàtte ne moom nekkoon na premier ministre. voilà bu ñu honoré wul at yi. honoré wuñ xam nga Sénégal lu ñu war a xool mooy nit ku def 72 ans ci am réew. Mhm. bi nga juddoo ak tey mu nekk 72 ans nga am benn nationalité réew moomu. musuñ la àtte musoo musuñ la ramas musoo tooñ sa cas judiciaire leer nañ. Mhm. nga garder ko ba mu am 70 ans waruñ ko taxal. ci kasaw kasaw quoi. d' accord dafa soixante dix ans du caaxaan di saway mhm. nit ñaa ngi fi doon violé violé wul. nit ñaa ngi doon sàcc sàccut nit ñaa ngi jaay yàmbaa jaayut nit ñaa ngi tappale tappalewul mi ngi ci lim war a nekk nekk ci lim war a nekk ba toll ci laa de retraite mhm. nekk ci boppam nga ñëw di ko tegalaat tey est ce que Hadjibou Soumaré tey bu xëyee xam ne moom sous contrôle judiciaire lañ ko nekk loolu mënul def mënu mënu ko def ay ay traumatisme ci boppam parce que xamu ko loo dund juróom ñaar fukki at miin nga ko d'accord waruñ waroon nañ ko mën a jox honneur sax at mhm. waroon ko jox honneur casier judiciaire am bi nga xam ne verse na ba jusqu'à la présent waroon ko honoré ci euh, waroon ko honoré ci ancien premier ministre ministre de budget yeux mois yu yëpp mu def ko mhm. ba pare honoré ko sax nag tooñul ba noppi nag dafa laajte rek dafa questionné rek mhm. waaw man nag Sénégal question réponse laa daan dégg waaye léegi question police daaw ma ko dégg moo tax yéen journalistes yi daf leen dàgg. d'accord mais euh, est-ce que.